Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi jàngeen jëfati dal leen ak jàmm ci uh, xibaar yi bu ngeen taaxirloo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ci askan wa dëkkee ca Angle Sadi Sam Kaolack ñoom nag jamono ji dund ak yaan dëgg la ñuy dund te loolee nag dara waralu ko lu dul ñàkkum ndox mu tar lool boole kook ne itam ña ngay fay ay facture jafe-jafe bu ni mel nag moo taxoon ñu wàccoon ca mbedd yi doon amal doxupa ñaxtu lu ni mel daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne jàpp leen travail bu atam ren jile dafa nar a yebook li nga xamee ne moo di ak korité gi euh, fête boobee nga xamee ne sax bu yenn liggéeykat yi euh, gisee ni am na solo ña ca des ñoom dañoo jàpp ne amul njëriñ ndaxte nag tey jii la wàllu gën a aay rekk ci lu soxal jafe-jafe liggéeykat yi euh, terewul ne daañu baaxantal la ñu tuddee cahier de doléance yi leeral gi daañu ca dégg Cheikh Babacar Dieng leneen loo xamee ne itam ne daañu ko waxtaane ci bile jotaayub xibaar mooy ne nag police municipale bu Kaolack bi daal dinay am nag la nga xamee ne moo di njiit yees eh, Pape Serigne Sarr bi tey lay wuyoo moom nag gannaaw ba mu rafetloo li nga xamee ne moo di tabbeef gi nee na nag dina xar rek tànk tubayam ngir itam daal di yóbbu police boobe fu kawe njoxtu ay kàddoom yu njëkk daañu ko dégg ci rajo Alfayda reportage koor gi nag ni ki tey jii wàllu muurum koor lay waxtaanee bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram toftal ca kooru gay ak Baara Diop jeexale ko li ci yéenekaay yi dal leen ak jàmm ci xibaar le journal Ngoné mu nekk ci euh, waxukaay gi euh, fego ci ak euh, Codou Seck madame kenn ci wàllum xarale gi nañu ko waxee nag la koy ubbee rek ca bopp ba kër gi di seen o nag moom lañuy ñuy joxoñ baaraamu tuuma ca seen i ay jafe-jafe ñoom nag askan wa yeewoo ca angle saa di Sam Kaolack nee nañu rekk bu ñu waxul ca ñoom daañu leen dégg ca beneen anam Cheikh Tidiane Diagne Anguel Sady Ruqula bu nekk ci quartier Sam gox bi le président conseil départemental bu Kaolack di yeewoo di Ahmed Youssouf Benzaloum lu yées téeméeri mètre digganteem ak kër Serigne Mboup maire bu Kaolack ñaar fukki at a ngi nii amul ndox bu ñu sukkandekoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci quartier bi dëmb démb ñu wàccoon ci mbedd mi dox doxu ñaxtu dal di wax li nga xamante ne moom moo di seen naqaru xol la Fatou Mbacke Thioune soxna si moo yoroon seen kàddu. ñun du ndox lan moo tax loolu lan xamul ñun loolu rek mooy suñu problème ci àngal saa ay waaye na wutaleen ñu ndox ngir yàlla. at ak ñett am naa ko angal saadi te bi ma ñëwee ba léegi loolu laa root nanoo roota roota root ba suñ mbagg yi wekkee guddi ko ci tëdd yaa ngi wonk boo mee fóot yaa ngi dem koñ ak koñ di ko fa fóoti ndax ñàkk ndox bi ñu demee ci kër gi sàlloo wàll ko ndox mi nag waxuñu leen dara lu ajum ngooñ nee na nag teew yee am problème patati patata waaye bu teew yi amee problème yi te ñun ñuy fay suñu facture nan ñëw dimbale nu ci ngir yàlla waa nan ñëw dimbale nu loolu rek mooy suñu soxla ban wa dalee wax ne dinañ ñëw jàppale leen ndax ay tiwoo la rek yoo xamante ne bii dafa sakk ginnaaw man man ak sama borom kër bi dem na ba S2 waaye taxu sax ñu ñëw wala ñu faale ñu rax ci dolli tamit ñuy dund jafe-jafe yu métti ci li nga xamante ne moom moo di facture ndox yi lee waaye tamit ñuy fay bés bu yàlla sàkk koppar gu takkoo takku kër gi nga xamante ne moom moo di seen o ki ñuy indil facture saa yu ñëwee nee na dafa rusas ñëwati sax àngal saadi ndax bu ñëwee day gis na ñun loolu dëgg la ci ñun amuñu ndox te bu ñuy indil facture wala muy relever danaan wax dëgg yàlla ñëw leen fekk ñu s ngeen di fay ay ñaata man danaa fay ñeenti junni juróomi junni doo ko am sama tabax borom kër bii sareet du ndox lay jënd fanweeri bidon sareet bu jeex mu indiwaat beneen te du tee bu facture ñëwee nga fay loolu metti na ñu ne nag li ñu bëgg mooy nguur gi indi leen saafara ci jafe-jafe bi ñu mel lu ko mooy dinañu leen déggaat ci beneen anam fekkee situation bi dafa persister ñu indil ñu facture te consommé wuñ ko quatre heures la ñuy yeewu cinq heures du matin di ut ndox te du ñu mën a fexe ba am ndox dinañ def marché te marché bi nag gis nga moom réew mi ñun jigéen ñoo fi doole ñoo fi ba fu marché jeexee dinañ jafe-jafe ndox nag ci diwaanu Kaolack fi mu ne booy na nopp askan wi ndax seen o dafa déggul ñaxtu askan wi wala nguurub Sénégal da koy jotut lu mu ci mënti doon Kaolack fi mu ne askan wi ñu ngi dunduk dunduk wereyaan. ñoom nag la leen gën a métti jaaxal leen Cheikh Tidiane Diagne mooy naka facture ndox ya ñuy fayte siitu ndox duñu ko am jigéen ñi itam nag root rek ba ni rootuñu nit tax na sax jamono ji ña ngay des di artu ak dànkaafu Mamadou Moustapha Thioune ak Cheikh Tidiane gisee yéen nga xam ne yéen a fi teewal taskatu xibaar yi ni ngeen constaté xam ngeen ne lii vraiment métti na parce que jigéen ñi mun nañ wax ne sax ñoo ci gën a sonn comme niñ ko waxee jigéen day nàmpal jigéen day ëmb jigéen day boot te loolu lépp ku ne xam na ne tey ji fii ñu toll ci vingt et unième siècle jàpp naa ne ndox waratul nekk problème mu Sénégal kon tey ji bu ñu toogee ba fii quartier bu toll ni Saam Angal Saadi nga xam ne ancien maire de la ville muy monsieur Ablaye Diack fii la dëkkoon ma paate ba fii la dëkk euh, benn jalu dëkk fii Serigne Boub manqué ndox jàpp naa ne lii dafa sax gàccilu ci ñun dañ ci doxa doxa dox nag ba sonn comme dox nañ ci ba sonn nag amuñ ci pexe lii lu ndaw a ndaw la rek lu ñu commencé mais ñu dem fu gën a sori buñ ci réagirul parce que mënuñu dëkk ci Kaolack gu tàng gii nit ñi sax daw nañ Kaolack dem Ndakaaru ndax ab sedd ñun ñu toog Kaolack gii ak tàngaay bu métti yi te mënuñu am ndax ñu ñuy privé ndox pour lan la ci société privée boo xamante ni yow da lay jaay ndox mais ku lay jaay dafa a jox marchandise mi nga soxla parce que bu weer la mais mënoo comprendre mu di jaay ndox produit boo xamante ne yow bu weer dee mu indi facture te boo ko fayul mu dagg sa ndox. Ah, te 60 jours yëpp nga xamante moom ngeen am contrat du la ci jox presque sax 15 jours yoo xam ne du la ci jox ndox 4 heures du matin ngay jóg man sama soxna léeg dama naan ko lii wóorul parce que dëkk bu am insécurité bi mën nga génn ñu gaañ la mais daf naa ma nu may def jigéen ñi root nañoo root ba seen faar yi ubbeeku fii ne jigéen ñi koo lamb faaram day metti ñoom ñëpp a ngi onko amanatuñ sax seen njëriñ seen jëkkër yi mais yeewandoo kon ñooñu jàpp naa ne li ñuy dund ñoom ñu ngi koy dund xañ na peut seen manque de temps wala yenn yi moo tax peut defuñ ci ay jéego mais désormais dinañ leen gën a interpeller ci problème bi ñu gën ci jóg parce que mbir mi ñëpp la laal amul sëriñ buub amul dan amul ki ci gën a tuuti ñëpp am problème problème mu ndox moom kenn am munu fi am ndox man sama kër a ngi nii en face boo demoon ubbi léegi doo gis ndox Mamadou euh, Moustapha Thioune tungu ca sàkku dimbal jee sow njiital mbootaayu jigéen ñafa ak Cheikh Tidiane Diagne. maire xale yi ci sam angasadi maay goroy jeeg ji tubaarkàlla macha allah nag dañ sonn dañ tàyyi dañ damm ndax nag ñaar fukki at ba léegi suñ robinet yi amul ndox bu demee bay xel curr lay def xale yi njëkkalante ne robinet ba ubbi na bu ñëwee ka njëkk a taaj paanam du fees mu tijji teg xale yi dañuy fanaan ci robinet bi ba léeg-léeg da ngay gis ku taaj ba yàgg nga ragal ndax guddi gi nga daw dem tëj ca néeg ba amuñu luñ toggee amuñu luñ naan amuñu luñ sangoo tubaarkàlla macha allah te kërug jaboot bu ne ndox la laaj ndox ci boppam moo ñu gënal courant ndax te kër bu amul ndox rek amul dara ah, ñuy ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo ca kaw di wàllu ndox mi nañ ñu dimbali laay war a sóoli indil ñu ndox mi ndax ñu ne bu ñu amutoon ndox sax te nga xam ne duñu fayeeku sax du garaaw mais na facture bu ñëw day gën a seer ba passé te boo fayul ñaari fan ñetti ñu ñëw coupé sa facture dootoo amati dara far Macky Sall nañu dimbale ndax Macky nag yëf yaa ngi bëgg a métti ndax mën nañu ñàkk lépp na ba mu des ndox yomb de dund benn yombut mais ndox ci boppam dañ ko war a am makki nañu dimbali laay war a sóoli su bëggee toogaat na jàppale jigéen ñi parce jigéen ay yaay mooy lépp nañu jàppale te yàlla tax bu ñu jàppalee ñu jàppale ko bu ñu jàppale wu na xaw ma sa ñu agressé dañuy tëj buntu kër yi ne ci biir di root waaye nag xamul nan laak naka la parce que yaa ngi féete ak mbedd yi kenn xamul nan laak naka la dimbale ngir yàlla ñoo ngi ñaan dimbal daal itam nag xooli ji feneen fu am jafe-jafe ñàkkum carburant ba ca commune bu Ziguinchor nag jamono ji ma ngay bëgg a xolli góom ñi nga xamee ne nag ñoo di automobiliste ya fare foofee jamono ji sax seen ak bopp dafa mujjee ubbu ràpp ndaxte nag ña nga doon yaakaar ni nal seen ak ceeb ci kori gi waaye nag boo moytuwulee loolee daal du sotti Mouhamed Sagna. ngir am carburant ci Ziguinchor fan yi nekk na li nga xamante ne lu jafe la li ni nag jaaxal na trop dawalkat moto yi ak oto yi rawatina chauffeur yu nekk ci gare routière bu moo Modou ab chauffeur sept places ñu fekk ko moo ngi concentré ci téléphone portable jot na xamal ni fan yi yëpp am na ay jafe-jafe ngir matal versement mi ndaxte toog na ay fan dawul ci trajet bu mu doon daw ndax ñàkkum essence bi lee Saliou ab dawalkat poto taxi Jakarta moom xamal na ni daa wutali woon usuy ngir am essence ndaxte wër na ba sonn fii ci station nekk ci commune bu Ziguinchor amul ndax li ni mel lu andi ay coppite ci njëg transport yi li mel nag jaaxal na askan wi réew fi ci Ziguinchor rawatina ñi nga xamante ne ñoo war a wutali seen diwaan fekk fa seen i njaboot ngir amal fet korité donte sax kilifa yi nekk ci réew mi jot nañu joxe ay assurance situation bi ni mel waaye taxul ñàkkum essence moo ngi gën di woy fii ci diwaanu Ziguinchor ba tax na situation bi bu saafarawul nag dem dikk bi askan wi yeewoo fii dina nekk li nga xamante ne lu jafe lool Ziguinchor Mohamed Sagnan Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. kaddu gi di àddoo ba tey fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñoo duppee Cheikh Imam Assane Cissé daal di àddu nag jëmee ci coowal politique gannaaw nag ay kaddu yu mu yëkkati woon moom El Hadji Malick Guèye bu lat méngé ah, doon ca ŋàññ ak xaxar ki nga xamee ni moo di ah, Pape bi tey moom nag ma demba bi tey moom moomee ay jege ñaaleem génn nañu rek daal di koy tontu yekk ko itam nag lu mel ni xeme à point de presse la leen jaraloon Insa Diouf moo ca àddu mi ngi ci micro Cheikh Tidiane ñu bugg a tontu ne li nga xam ne moom mooy le cursus bi nga xam ne moom la Pape Demba bi tey def nekk ingénieur def toute sa carrière au niveau de la Sénélec génn nekk deux fois conseiller technique bu ministre de l'énergie dem secrétaire permanent bañ indi ko def ko directeur général de la Sénélec dama jàpp ne kooku su ko mérité woon duñ ko fa teg rawatina ci li nga xam ne moom lañ ko dénk muy Sénélec boobu am na loo xam ne su koy wax sa du Pape Demba la ñàkk a le président de la République la ñàkk a parce que ku jël ku mel ni Pape Demba bi ko directeur général Sénélec pendant trois ans Senelec nekk boîte bu compliqué déggatoo fa grève déggatoo fa yenn tension yi déggatoo fa xuy xamaj nga fay dégg ay redevance je crois que sooy wax ni kii fi ñu ko teg manu ko loolu ñun duñ ci tontu askan wi ñoo lay tontu ñu jóge fa mu ne commune yu bari amuñ courant ma ne est-ce que Malick Gueye habite bel et bien dans le département de Kaolack accompagné ngeen ñu ci campagne électorale bi dañuy dem dans des communes ñu ne Pape demb bi day jarutoon nga fiy ñëw parce que say réalisation mu li traduire la vision du chef de l'État matal na sa campagne parce que suñ dëkk actuellement ñu ngi wax accès universel à 100 pour cent ay benn village ñu dese wala ay ñaari village ci ay communes yoo xam ne def na plus de 80 villages kon loolu moom moo koy wax mais je prends en témoin les maires du département ñu bugg wax maa liggéey ci loolu mu wax day wax loo xam ne lu ko neex la nee na le président Pam Demba Bitèye kenn gisul foo xam ne nit ñi sa gërëm nañ ko ba koy tuddee sabar je responsabilité dama ne Kaolack ba mu Kaolack daj amul benn responsable boo xam ne Pape Demba Bitèye ni mu ñemee parrainage am na ku ko ñemee parrainage zone 1A duñ ma bàyyi ma wax leneen yéen xam ngeen ko yéen journaliste yi ODCAV duñ ma bàyyi ma wax leneen ku jóg parrainage Kaolack sa xel fi mu njëkk a xalaat mooy ci le président Pape Demba Bitèye CNG lutte duñ ma bàyyi ma wax leneen avec le drapeau du chef de l'État mi ngi noonu euh, wéet ji nag euh, gis euh, bokk ca mu daal di cay yokk ne itam nag ne moom El Hadji Malick bu arrêté wul daañu ko wax lu ne weng te nag moom am na lu ko doy sëkk muy mu jéem a lijjanti lat ménge ga mu dëkk Insa Diouf ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne damay wax Malick tuuti ne ko nit ñi nag fekk nañ tuuti man maa nekkoon nag moom ci ab Ablaye Diack PS daanu mu bàyyi ab PS waa du ñëw mu ànd ak moom Macky Sall ñëw mu ànd ak moom lépp mu teg ko ci yaakaar ne lépp li koy regle mooy chantage et su wax jotee dinañu wax ci biir campagne bi deux fois j'ai man personnellement Malick liggéey toog ak moom ak bitey mais su dee nag dangaa bëgg ñu jox la ay oto nekkul ci loolu su dee da ngaa bëgg ñu jox la ay millions pour nga ànd ak Biteye Biteye newul ci loolu parce que Biteye lam doon def ce pas pour Biteye c'était pour président de la république mm. su dee président de la république la gëm am na yoo xam ne waru ko wax ñu koy wax nag ne ko lu bari xam nañ ko te lu bëri dinañ ko wax wax su jotee mais li nga xam ne moom lañ mun a gàttal nee na élection yi ñu génn Pape Demba Biteye moo tax gañewuñ barki démb da waxutoon loolu dafa waxoon Pape Demba ne ko man Malick soo ma joxee ay millions ma dugg ci département mais tudd tuuru Rahma Pape Demba ne ko man ak min de choisir munoo dem sans raxma munuma dem sans raxma moo ko li nga xam ne moo xew ak ñi nga xam ne ñoo nekk ginnaaw le président Malick Gueye yàgg nañ ci terrain politique bi Malick xam na bu baax a baax a baax a baax la may wax man Insa Diouf mii dama ne Malick si tu étais crédible Macky Sall du jël deux fois docteur Macoumba di ko def candidat Lat Mbengue ana li nga mën la nga mën wane ko Lat Mbengue mais docteur Macoumba def la battre largement. Et ce choix-là, c'est le choix du président de la République, des responsables de Kaolack. Que il est temps pour que ñu taire les querelles. Il est temps que ñuy monter des personnes pour sacrifier d'autres. législative du problème mu PAM Demba Bitèye ku yaakaar ne dañoo yaakaar ne président am na ci moom yaakaar te mun na ko jox dara ci législative bi ba nga gaaw di teg ay lobby pour xeex ko arrêté PAM Demba Bitèye demandé wul dara. Insa Diouf moomee nag doon addu ci Patelli mooy chargé de communication bu mouvement bi di CREM CREM Kaolack sur les rampes de l'émergence avec Macky ñu wéy ci jukkim xabaar yi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. 90 lii eh, tam nag ponk la woon rek ci eh, jël eh, benn ge fête du travail nag mooy rek bés bi ñu jagleel ñi nga xamee ne ñoo ji ak liggéeykat yi ngir itam naka ñu cee jotal la ñu tuddee ay revendication atam ren ji nag fête boobee ana naka la ñu ko bëgg a mandargale fii ci diwaan bi waaye itam nag jafe-jafe liggéeykat yi ana fan la toll ba jamono jilee Cheikh Ababacar Dieng. ñu ngi waajal fête du travail moo di benn fan ci weeru mai lan mooy tolluwaayu liggéeykat yi bu Kaolack nationalu synthèse di ko tënk ne am na ay xët-xët Abdou Ndiaye. nit ñaa ngi liggéey ñu ngi dem mais ba léegi jafe-jafe yaa ngi ci biir entreprise yi les travailleurs sont fatigués sonn nañ comme d'habitude mais quand xaw na tane seen coono yi mooy chef d'entreprise yoo xamante ni bii soo aroga xamuñu ak ak yelleefu liggéeykat wala même buñ ko xamee duñ ko respecté diggante patron yi ak liggéeykat yi it taxu ko neex noonu ndax am na ay liggéeykat yoo xam ne li leen neex la ñuy teg seeni travailleurs yokku ci tamit service yu bëri amuñu délégué day tax patronat bi di salfaan yu àq ak yelleefu liggéeykat yi. am na fi benn restaurant bu mag bu nekk fii ci national bi travailleur bi yaayam dafa gaañu mu dem fa jaale ji bi mu demee rakk ji ñëw moom mu ñëw am ci benn restaurant bu rakk ji liggéey moom mu dem fa di xaar rakk ji pour que mu mun a dem jaale ji te ñëw ci lañ ko dàqee am na si beneen femme boo xam ne nekkoon na fa aussi ci même restaurant bi moom tamit il était en état de grossesse ci a saisi le président tribunal du aussi am na jafe-jafe parce que le délégué du personnel mise à pied woon nañu fi trois jours sur simple réunion rek mu wax loo xam ne bokkul ci rek ñu mise à pied ko pour un délégué du personnel am nay problème am nay problème léegi nag moo tax syndicaliste yi ñu ne dañoo fas yéene xeex ak service yooyu ba fu mu yem neex bu laajee wàccu ci mbedd mi sax comme koor gi jeex na danañ ko def fi ñuy mujj mooy saisir le ministre vraiment bu laajee ko tous defal délégué nga lànk ñu doo ko defal inspecteur nekk fi aussi taxawaay ba ñu war taxaw taxawuñ ko bëri na fi la bonne affaire jusqu'à présent directeur yi ngi refusé organiser ay élection délégué du personnel te loolu yoon moo ko santaane société privée bu nekk boo amee minimum dix travailleurs onze travailleurs da nga organiser délégué du personnel marché poisson depuis trois ans ñu ngi ci daw saisir nañ inspecteur ba sonn ba léegi solution mai euh, du demee noonu ndax premier mai altine bii la mun na am mu nekk bisu korité mun naa amit mu nekk suba la korité bu mu ci mën doon organiser lu dul julli gi moom du yomb. jaajëf Cheikh Babacar Dieng feetu premier mai boobee nag donte ne amul njëriñ boole koog ne itam fa mu tombeel terewul ne itam ne waajal nañu ca rek baaxantal la nga xamee ne moo di cahier de doléance yi ndaxte nag la ñu cay bañ mooy ak ak yeddaange lu ni mel du samay kàddu Babacar Dieng. premier mai bi dimanche passé tous les secrétaires généraux yi nga xamante ne ñoo bokk CNTS réuni nañ ci bourse du travail pour waxtaan ci naka la defee premier mai. Covid bi moom wax dëgg yàlla ren nit ñaa ngi liggéey mais problème bi nga xamante ni bi moom dafa secrétaire généraux yi posé mooy euh, le premier mais mun naa am sax comme ni ko ñu gars yi waxee ñu Korité dimanche suñu Korité wu dimanche Korité lundi veille Korité aussi pour mun a organiser manifestation fête premier mai dafay xaw a doy waar gaañaa ngi ci wàccaay bi ak yu noonu xamante ni bii moo solo mooy peut-être trois ans ngi ne xaw ma quatre ans union régionale synthèse Kaolack dafa ko woon mooy lan mooy déposer cahier de doléance parce que ñun jàpp nañ ni déposer cahier de doléance amul njëriñ parce que li tax amul njëriñ mooy cahier de boo ko déposé la moindre des choses l'autorité administrative daf la war a woo woo les généraux ñu ñëw toog ñu waxtaan secteur par secteur mais malheureusement loolu que ñu seen doléance donc loolu la ñuy bañaat moo tax daañuy déposé cahier de doléance même yi la rek parce que amul benn changement secrétaire général bu nekk yaay xeex ci sa biir entreprise wala sa biir société pour mën a am satisfaction mais kanta nag euh, cahier de bi ci boppam ñun gis nañ ñu njëriñ donc voilà ñu ngi réfléchir nous au niveau de la mairie aussi on a adressé une correspondance euh, à monsieur le maire Serigne Boub mais je pense que vraiment fera quelque ca geneen wàll ga ak waa UNSAS moo xam ci wàllu doxalin ak wàllu gëm-gëm kay seenug secrétaire général régional bu Kaolack bi moom lii la wax Gorgui Pouye ak Cheikh Ababacar Dieng. ñun UNSAS comme ni ñu ko amee arrêté ko defee bëgg nañ ko célébrer mais dañ nag célébrer maanaam dañ koy gàttandu maanaam tey jii sax gouverneur war nañoo recevoir ngir ñu déposer cahier de doléance ak organisation yi nga xam ne ñoom juróom-ñeent lañ maanaam ñi nga xam ne ñooy liggéey mairie mooy waa ne ñoo ne ci SYTMAS mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci Salin di Sine Saloum SYTJUS mooy ñuy liggéey ci tribunal SYNACS mooy chauffeurs yi ak transporteurs yi ci Kaolack SYNECS mooy si Kaolack ay ñaxtu da nga xam ne bëgg-bëgg la suñu yéeneel mu dem ko pour yóbbal ko autorité bi nga xam ne mooy gouverneur moo fi teewal président de la République te danañu recevoir tey am nañu naan sax déebal autorité bi cadre de l'alliance bi bëriwul njëriñ ndax du ci def dara wala yéen loolu dalu Amadou ak euh, Alassane Sall chaque fois bu ñu déposé woon cahier de doléance danañ oote benn daje boo xam ne présidé par l' régional du travail ñu au chef de service yi ci bokk yëpp au chef d' yi ci bokk yëpp ñu toog ñu def analyse u yi nga xam ne mën nañ koo régler fii ñu régler ko ñu mënta régler fii ñu jàllale ko mais jàpp nañ ñu daal ku ne ak gis-gis bi ko amee mais gis nañ daal ñun lii suñu warukat mooy en tant seenu cahier de doléance boobee lañu ñu ca dëxëñ ni ay ñaxtu bari na te it nag laal na fànn yu wuute dañu koy teewlu ba tey ak Cheikh Babacar Dieng waaw li ci gën moo di ne boo demee ci wàllu jàngalekat yi xam nga ne fan yi ci gannaaw yëngu woon na lool ba am na ay accords yu am accords yu am na ñu jot na ñu andi boo demee ci salaire di Sine Saloum liggéeykat day liggéey nekk journalier amul plan de carrière bëgg nañu journalier ñu embauché ñu am plan de carrière mais tamit gis nga diggante liggéeykat ak njaatigéem war na am lu ñu tudd la promotion de dialogue sociale maanaam tant que koy def mutation ba ma ko jaayee ma muté ko ñu waat ko mooy double mutation léegi loolu moo tax ñu ne jub ci loolu boo demee dans le privé catholique enseignant privé catholique marié dañ koy jox quarante mille d'indemnité de logement ki nga xam ne célibataire la ak euh, jigéen bu am jëkkër boo demee sud jus deux mille dix neuf ba tey ci wax ba léegi am loo xam ne ñoom ñu ngi nekk ci ay prestataire lañ pour qualité service bi gën a yokk nañ embauché prestataire yooyu ku gis na ci gannaaw amoon ay yuuxu ay jafe ci am donc ñun buñ jël soo ci jàngalkat bi am nañ jur statut yi am na ñoo xam ne décisionnaire lañ mais nañ ko laaj génération par rapport ak seen li ñuy def doy na waar donc ñu war a xoolaat situation yi bon SATCOS su mairie pour di dégg na fan yi ci gannaaw que am na ay yëngu-yëngu yu am diggante syndicat yi ak mairie bi mais loolu tamit dañ koy a ngay fàttaliku rek nañu daa dundee premier mai boobee lu may loolu itam waxtaane nañu ak ñoom ñoom rek seen ak dossier baak fa mu toll lu ko jiitu itam ñu ne feetu ren bi eh, ci yaakaar gu tas ak njàqare la ñu ko nar a dundalee Khalifa Dieng ak Cheikh Ababacar Dieng. ñu ngi dundee comme nañ ko doon dundee rek ci yaakaar bu tas xol bu jeex depuis 2019 def nañ suñu benn défilé yóbbu suñu cahier de doléance jox ko aussi autorité administrative yi donc amoon ci yaakaar lool waaye amul benn suite moo tax ñun premier mai moom daanaka dañ koy dégg nii rek mais wax dëgg yàlla gisuñu daal benn satisfaction. bu ngeen daan liggéey salaire ko doon. waaw nañ ko doon dundee ñun travailleurs yi peut-être ñun prise en charge bi desoon na amul dara lu ñuy neexa même premier mai sax boo seetee ne am na ñoo xamante sax dañ ko doon liggéey sale ñuñ jàppoon ay permanent dañun ay permanent lañ woon ñooñ daal lañ jël neexal leen jox leen tuuti enveloppe pour ñu sol si yére dajaloo fenn ku nekk ñu jënd fa nag feetu ko pare nañ si ñun moom amuñu dara la nga xamante ne dañ doon jëriñoo si feetu premier mai yi gën ak moom sax borom sana yéen a ngi woon ci yoon fu ngeen toll ba tey euh, dossier bi mi ngi ko daanee mi mais exécution provisoire tamit defoon ci appel donc ba mu demee cour d' appel cour bu rejeté na appel am que nag na somme bi parce que somme bi première instance mi ngi toll si un million quatre vingt dix neuf mille francs pour kenn ku nekk si ñun mais cour d' ba ñu demee da ko cantonné ba cinq cent mille kenn ku nekk si ñun loolu tamit ba mu ñëwee i tamit euh, defaat na appel euh, tribunal première instance ne da ko bëgg a yi ci ay moratoire maanaam def ko ay pàcc-pàcc ba nga xamante ne ku nekk ay quarante mille francs lay am fin du mois loolu nag dañ taxee dem nañu tribunal tribunal tamit rejeté loolu donc suñu première tranche exécution provisoire muy quarante huit millions pour kenn ku nekk si ñun francs loolu jot nañ ko léegi dossier milliards moo nekk en cours au niveau du cour d'appel de Kaolack waaw tey la ñu gën a ñun exécution provisoire weeru koor rek mais incha allah suñu jugee loolu lépp dina ko ndewal ci kàttanu yàlla. ci pàttali eh, di wax ne rek moom Khalifa Dieng moomee nag moo daal jiite eh, juróom ñaari liggéeykat ya Salin dàqoon nga xamee ne sax ne ba jamono ji seen ak dossier mi ngi tribunal ñu wëy ba tey ci xibaar yi moom nag meeru Kaolack bi di Serigne Mboup moo ko daal di tabb ngir itam mu daal di doxal li nga xamee ne moo di police municipale bu Kaolack bi moom mi di Pape Serigne Sarr bi tey daal di nay rafetlu moom Serigne Mboup daal dina koy am ay kàddoom yu njëkk ci rajo Alfayda. bu ma sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dolli wax alhamdulilah rabil alamin maa ngi gërëm monsieur Mboup Serigne di maire de la commune de Kaolack parce que wax naa la ne vision tax na ba man ma adhéré à sa cause jël na confiance am teg ko ci sama jëmm ji ne ma dama bëgg nga jàppale ma ci police municipale te kenn waxu ko dara Serigne xam nga bu ko neexoon mu jëli keneen feneen nit la boo xam ni yàlla may na ko macha allah ci xel ak lu bëri police municipale ni mu mel nii Serigne jëlee ko fii mu nekk ci statut bi mu nekk yóbbu ko foo xam ni fu gën a kawe lay doon ba ñëpp naw ñu parce que bëgg na indi matériel bëgg na fexe ba xale yi fi nekk kenn ku ci nekk laa nga am mbégte am cawarte yi vraiment sol tenue bi parce que boo seetloo police municipale boo demee Dakar dañ naan les petits bonhommes de la route maanaam boy yi nga xam ni xale yi nga xam dañu nekk ci tali bi rek di dimbale waa loolu du boo xam ni ku leen gis mi respecté soo am porté ko ci man dama ci xar sama tànk tubay fexe ba objectif ya nga xam ni daf ko bëgg ñu jàppale ko ci ànd ak xale yi nekk benn nit boo xam ni benn nit lay doon benn tenue lay doon ñu sol ko nag jéem a jublu ci directive yi nga xam ni moom la monsieur le maire joxe parce que ñun ci maire rek la ñu dépendre directement moom rek moo am sañ-sañu ne police defal leen ma nangam wala def leen nangam wala def leen nangam wala teg naa fi nangam keneen na ko loolu euh, na itam rek li koy xaar euh, ci wàllu euh, jéego a yëkkatiwaat dayop euh, police municipale boobee Pape Serigne Sarr bi tey ba tey ay kàddoom ak noa bi ay li ñu fi xaar moom wax dëgg yàlla bëri na na lool commune bi yaatu na mais yàlla def na Serigne li fi fekk dafa xaw a ci personnel fii may wax ak am na ñaar fukk yoo xam ni dolli na leen ci biir personnel te pare na aussi pour dolliwaat ñeneen ci biir te loolu aussi boo ko seetloo dafay créer emploi parce que am na ndaw ñoo xam ne ñu ngi fi taala oto yi ñu ngi fi ndax ci biir commune bi police municipale moo am droit réguler la circulation te ci la bokk ak euh, yeneen ak yeneen ak yeneen assister nit ñi même ci wàllu secours sax maanaam fekk nit wala bokk mu am yenn événement yoo xam ne nit ñi daanu ñoom dañ di tàggat ci loo xam ni balaa ñoo oo médecin sax wala ñoo oo sapeur pompier ñoom danañ mën def yu njëkk yi nga xam ni bu médecin ñëwee dana fekk kooku ñu mun ko sauver yooyu bokk na moom ci loolu fexe ba la mu joxoñ ne bëgg naa lii ngeen yegg ñu yegg ci loolu. xibaar yi ci Alfayda. yegg si euh, nañu ca ponk ba ak nañu baaxoo di ko euh, defee reportage koor gi nag tey jii dina yitteel jullit ñëpp ndaxte nag waxtaan wi mi ngi soxal rek la ñu tuddee muurum koor euh, kañ la naka la ak it kat moo ko war a génne leeral gi ci bile élément bu alin Alioune Badara Diop. muurum koor doon lu ñu war a génnee ginnaaw bi ñu war a ba noppi jagleel ko miskin yi maanaam ñenn ñoo xam ni seen loxo jotul ginnaaw loole doon loo xam ne day mottali sunu koor wante bokk na ci goo xam ni diggante jullit ak moromam Cheikh Baye Adi Niass indi na ci waaw muurum koor lu am solo la maa ngi gis léegi daal ifta masri yi mooy azhar fi nga xam ne ne fa la xam-xam di ballee ñu ne buñ sañoon muurum koor duñ xaar ba korite ñu koy joxe ci biir koor gi lañ koy joxe rawatina ci tàmbalemaat te ñu ne ren dañoo santaane ne buñ ko joxee ci dugub buñ ko joxee ci ceeb buñ ko joxee ci mboq buñ ko joxee ci dara nañ ko joxee ci xaalis naq dan ñu ne mooy gën ndax ci lay nit ki xam nan lay jëfandikoo ndax boo na dem jaay ko pour faj caat soxlaam jaay ko ci prix bu yomb boo ko joxee ceeb fekk na am na ceeb mën na dem jaayaat ko ci prix bu yomb waaye boo ko joxee xaalis dina xam naka la koy jëfandikoo ci loo xam ne ne dina ko mën a jëriñ ndax lu tax ñu ne muurum koor pour dimbali miskin dimbali ko ba pare ngeen ko sonalaat ci lan jox ko mu dem jaayaat sonnaat ci mën naa mu mu ko joxee xaalis di nga xam ci lan nga ko war a mën a def dina baax loolu la daal iftar masali wax laaj bi samp mooy kan moo war a génnee muurum koor tontu baa ngi nii ñëpp képp ku am xel nekk kilifa sama doom ji sax dama yow doomu aadama gi na nga ko war a génne mbirum koor. naam sax bu ñu xamee kan moo ko war a génnee wante nan lañ ko war a génnee tamit am na ci solo. lu ñu war a génne mbirum koor nu ngeen ko baaxoo di xam rek. ñaari kilo dugub ak genn wàll léegi da ngay gannaaw ñaari kilo dugub ak genn wàll lañ koy def wala ñaari kilo mboq ak genn wàll léegi na ngay xool nu rek xam naa ne dina wax ne Cheikh Baye moom waxati na lu rëy lii moom maa ngi koy dara wax waaye dama ko gis ci daal iftaar masri bi xam mooy dugub wala mboq wala ceeb moom la ñu génnee ndax dañuy wax ne li population bi di gën a jëfandikoo ci loolu la ñuy génnee mburum koor waaye man Azhar laa jàngee damay suivre seen mbir ndax ñoom sax lu baax rek la ñuy génnee. mburum koor nag doon na lu am solo ci jullit bi li ginnaaw bi mu waree ba noppi wante doon na mbir moo xam ni dañ koy rafetlu bu baax a baax ci diggante jullit ak moroomam jàppale ñenn ñoo xam ne sa loxo jotul ginnaaw wante day baax loolu tamit ñu xam ñan lañ ko war a jox wante ñuy bàyyi xel ni doon loo xam ni day mottali sunu ngëm yàlla rawatina ci waxtu bi ñu nekk. xabaar yi bitim réew. dañuy àndaat ak moom ci jukkim xabaaru bi ci réew yi Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngone Ndiaye ren xibaaru bitim réew dañ koy dooreek réew bu Madagascar wax ci ay doomu aadama yoo xam jot nañ la fa jàpp ñu doon dagg li nga xam ne mooy garab yi lee te mbir mi la doon loo xam ne askan bi foofu la dañ koy aaye ginnaaw ci benn bataaxal boo xam ne jëwriñ ji ñu dénk wàllum xaalam gi lii joxoon na ko ci alxames bi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril la ànd ci li nga xam ne mooy waa gendarmerie ñu moo jot nañ teg loxo yoo xam ne dañoo pàkk bi di dagg ay garab naam sa jot nañ fa nemmeeku ci fan yi weesu wante mel ni mbir mi dafa takkar naa si ndaxte bu ñu fàttalikoo même bi nga xam ne dañoo nekkoon ci covid 19 bi mbir moomu daana fa doon am wante doon na loo xam ne léegi gouvernement bi jël na ci ay matukaay yu mat sëkk. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Guinée Conakry wax ci ki nga xam ne moo jiite woon lii di pencu ndaw réew mi moom mu la teg nañ ko loxo ak ay naataangoom ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci commission électorale nationale boobu lee li waral li ni mel nag mooy ay njuñ njaaj xam ne jot nañ ko fa nemmeeku pencum ndaw réew mi mi foofu ci réew bi Guinée Conakry Amadou Damaro Camara jot nañ ko teg loxo ci yenn nju yoo xam ni jot nañ ko fa nemmeeku ah, ci liggéeyam foofu ca penku ndaw réew mi. xabaar yi bitim wax ci beneen mbir di ki nga xam ne mooy Ali Bongo ginnaaw tukki nemmeeku mu njëkk bi nga xam ne amal na ko booba ba léegi tekkat mu jagle ko li nga xam ne mooy jàngu bi lee ngir nga jéem a gën a rataxal diggante bi diggante jàngu bi ak li nga xam ni mooy gouvernement bu Gabon ndax tension yi nga xam ne koy faral di gis foofulee te doon loo xam ni neex ko benn yoon yoon xabaar yi bitim réew wàllu migration li ñu antu maanaam ñi nga xam ne daw di tukki ji seeneen réew yi lim bi lee ren mu mel nii gën na yokk ndaxte bu ñu defee xayma lu tolloog ñetti junni doomu aadama yoo xam ni dañ ci ñàkk seen i bakkan ci atum 2021 bi ñoom moomu lee seen bakkan des ci géej gi ginnaaw bi ñu sukkandiku ci haut commissariat bi nga xam ne moo yor waa réfugié foofu ci Europe naam sax ay doomu adama ñu ngi ci ñàkk seeni i bakkan xabaar yi bitim réew bu France wax ci xam ni ñu ngi ko war a door ci atum ci weeru juin lii di PS di parti socialiste ñoom moom la jot nañu décidé ci ajuma bi ñu weesu ginnaaw ci yenn ay négociations yoo xam ne amoon na fa ngir kat jéem tafu ji ci fi nga xam ne mooy union de la gauche maanaam parti bi nga xam ni kii di Jean-Luc Mélenchon moo ko jiite ngir kat ñu mën am taxawaay bu mucc ayib ci élection législative yi nga xam ni ñu ngi ko nar a dënmal foofu ci réew bu France. yaram bàggoog euh, tàggat yaram gi euh, Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi di ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu ko doore ak prix marque Viviane Foy bi ñu joxe at bu jot foofu ci Europe nag di ko jox football kat africain bi ren jii nag ñett ñoo ci course bi nag ngir uutu ki nga xamante ne moom mooy congolais bi de Gaël Kakuta bi ko jëloon bokk na ci doomu Côte d'Ivoire bi di naatagoom bi nekk foofu ci reen di doomu Maroc bi di Nayef Aguerd ñoom ñooy ñett ñi koy xëccoo sa Gana Gueye génn na ci Ligue Pro fii ci Sénégal ñaar fukkeelu bëccëg bi tey jogante yëpp bu juróomi waxtu jotee lay doon nag ndax wàllum korite gi ak wàccaay gi ci topp moo tax Ligue sénégalaise bu football professionnel daal di jël jogante yëpp yóbbu ko tey ji bu juróomi waxtu jotee Dakar Sacré-Cœur moo daal ak Teungueth FC Jaraaf di laal ak US Gorée Guédiawaye football club di laal ak CNEPS dina lekk AS Pikine Génération Foot dina lekk Jambar Mbour Petite Côte dina lekk Njambur bu Louga CHAN confédération africaine bu football xam ngeen dafa waroon a yóbbu li nga xamante ni mooy tirage au sort bi démb la waroon a doon nag daf ko mujj dàq ni yóbbu ko ci jëmmi jamono lii di tirage au sort bu CHAN 2023 ñu dem ci dëkk Europe waxtaanee fanweeri bëccëg bekk juróom Ligue 1 Lens moo daa lekk Nantes tey ren di laa lekk Saint-Étienne fanweeri ñaari waxtu jotee Watford di laaleeg Burnley ci boobu la waxtu Aston Villa di laaleeg Norwich Leeds United di laaleeg Man City bu ñeenti waxtu jotee ba teg simili fanweeri bëccëg beeg ñeent Liga espagnol Real Madrid moo laaleeg espagnol Barcelone bu ñaari waxtu jotee ba teg simili ak juróom Valence FC di laaleeg Levante Atlético Bilbao di laaleeg ak Atlético Madrid fanweeri bëccëg beeg ñaar Bundesliga Mainz di laaleeg Bayern Munich Borussia Dortmund di laaleeg Bochum Augsburg di waroon bu ñetti waxtu jotee Spezia dina lekk Lazio bu juróom benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróoma magok Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kaddaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat jërëm yi jaa ngeen jëf xibaar yi ci Alfayda. ñu wéy ci euh, xibaar yi yegsi nañu nag ci euh, kooru ak gay moolum géej ak Bara Diop. kooru gay moolum géej o oh, Haaj Ibrahim Gay tëgg ndënd ak sémmiñ neex benn naqari benn bu gay warul tey tey xel tey tey jii nag am na yaakaar tax na daal nay tax ñëpp waxtu xëddam jot mu def comme dab donte bile bu yem la sept moo nga ca rajo ba boole ko di ñaan rek rek sunu borom mottali xaaj ibrahim moo am jom góorgóorlu na ci kooruk tey gile ba mi di jot tàngoor nangan bi tàmbali di tàngal yaram wi bu énervé rek biir baa ko tooñ fa yëngooti ku ko xool mu sippi la ko sëriñ sëriñ kay élément bi di jàll xanaa dégloo ko sëriñ <laughs> directeur xam nga rek lan ma sant la liggéey gannaaw ma waxu jaar xanaa yow la jël sa sa soxna yaay kile kilifaam man kenn du ànd ak man da ñàkk fayda ah mais xoolal xam nga lan damay wax rek ma dab ngay gannaawu ko Haaj Ibrahim gaawal ci xaalis julli gi fan yëpp maa lay dakk foo ma dégg dëgg sa tànk dg <laughs> eh, madame yaay sama cappali booy tàngal rek du baax <laughs> xam nga rek dafa am lu may xaar quoi mais garaawul naa ko gérer madame Gaye nga ni xaar ma dugg ci kër gi fekkaat la fi nga naan ma patati eh, patata Haaj Ibrahim Gaye comme tey caaxaan génn na jubali bayal ba deux heures jot na moo nga ca jumaa ja ñu julli rek xaaj ibrahim tënk fa boppam ngir kooru tayam gi mat di këpp-këppal rek léeg-léeg mu koj ko ci di tudd borom bi boole ko ay astaxfirullah yu limu nooni la nekkee ba tàkkusaan jot mu julli rek ànd ak mbooloo ma ca bayaal ba xalifatul muazzam ci tafsirul quraanul karim xaaj ibrahim nekk ca mbooloo ma naan iskay tey jii nag yàlla bëgg na ko 18 heures teg fanweeri simili tafsir ba jeex cheikh Mouhamadul Mahi téye ci loxo bi ah alaaji Ibrahima naka koor gi dèjà maa ngi ci de maa ngi ci de waaye sëriñ bi waaw nga ñaanal ma këram ndogu ko invité ne bu ñu noppee rek war nañu ànd ci final concours récital Coran prix cheikh al islam o DG naka ñu yegg rek ñoom ñëpp ci saal bi xaaj Ibrahim tim yu bakkane robinet yi bakkan bi di xeeñte rek <laughs> di xool montre rek Cheikh Ali ban heure dix-neuf heures wax ci xel mi xam naa amul heure <laughs> Seyda Fatima ban heure a jot dix-neuf heures cinq dèjà <laughs> bako bako bako li muy laaj lépp moo ngi takk montre mu xool gis aiguille bi taxaw ci seize heures xaaj Ibrahim boolewu ci wax daa génn rek xooj ko ci ndox mi boo màndee di nga dox sa morom yu baax yi di dem ngay taxaw mas naa ko gis dañ toog tuuti rek no dugg a jëpp xaaj Ibrahim gay ànd ak mbégte gëmewu ko xol bi fees tax mu daanu mel na ku xëm gaañe jangat jangate nga baal ñu àq baal nañ ñépp àq déwénati li ci yéene kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci euh, yéen i kaay yeeg El Hadji euh, ahalan bikum docteur ba seetoon aji saar yoon déglu na ko niki démbu allah libération moo ñu ko xamal Alfousseyni Gaye gynécologue la bi aji saar waxee ne Ousmane Sonko fa ko violé ca moom la demoon mu seet ko ba mu ko seetee nag ba pare fa weddi waxu aji saar ja ne ndaw sii ma seet siqut góor boobaak léegi lu mu gàtt-gàtt mat na benn fan loolu la def ca rapport médical ba jox ko waa gendarmerie yéene kaay bi ne démb nag bi ko doyen des juges bi dégloo fa dëggal bindoon ca kayit Sarr fañ ko wiyole ci waxtu yam fa yeggee ca moom am na sax ñu fa tudd naka noonu maître saw bi ko woo laata aji Sarr di fa dem fa wax dëgg ca kanam xàttekat ba toj yax ba ak ay xibaar yu garaaw la neen lu garaaw lu xam Sénégal mooy suñu hôpital yi presque deret xamatut fa maanaam ku feebar soxla deret fa xam xay mbuus yuñ lay sampal sowetaas deret li ni mel nag boo moy tuut fay jeex tàkk ci réew mi te boobaa muy musiba naaru laay l'observateur moo ñu ko xamal yow seetal bu Tamba fukki mbuus a leen dese bu Kolda fukki mbuus ak ñaar Thiès jeexal tàkk ndakaaru njaay liñ xam ci deret ñetti fanu yàlla moo ci des pour mu jeex yéen kaay bi mel ni ku yuuxu wàllu na liy jot jot ñoo askanu nañ dem maye ji deret la mu nar a maye moom Macky Sall du deret de waaye ndimbal jëmale ci askanu Sénégal yi nga xam ne fa ñoo ndóol ñàkk xiif vox populi na ko rawatina dund gu gi tubaab yi nag waa FMI yi ànd nañ ci loolu Sénégal bëgg a def te noppi nañ sax ngir dimbale Sénégal ci koppor a bënn rek la de te bu pétrole bi génne bañ tàmbalee jaay xanaa su boobaa réew mi dana neex li neexut nag mooy diggante ñu yor wàllu tourisme hôtel yeeg ñoom seen ak jëwriñ ji leen jiite ba tax enquête yéen a kaay coow li ni mel fa la xëy addu na gaa yi réeroo de waaye ñi nga jéem a gindaliku nag leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na daam mbooj syndicaliste daam kat bañkat waxkatu dëgg dem na fekk ji waaye yeewi askan wa ci wati député yi di ñëw si du quotidien moo ñu ko xamal daam nekk député assemblée nationale layam yéenekaay ne du Dame Mbodj de Adama Gaye tamit journaliste na gaaña les si ko yéenekaay mel ni ko naan man kay Macky faa ko jàqal ginnaaw coalition yeewu askan wi am na beneen coalition bu xam doole boo xam ne ay ponkal ngonk yu aay ñoo fa nekk ñoom nag fa ñoo duppee seen bopp coalition Aar Sénégal Thierno Alassane Sall nag mooy seen tête de moo leen jiite seen caution xaalis bi ñu war a joxe ngir bokk ci wote député yi joxe nañ ko niki <laughs> nante bokk na ca Thierno Bokum Abdourahmane Diouf juge dem ak ñeneen l'observateur na leen hee fa ngeen a foog na Macky Sall fay toog di xoola rek ngeen ñëw yenu bécci ci wote député yi <laughs> yéen fa ngeen di fontu Macky fi nii ma ngay defaru yi ci wàllu politique tasaara na leen ci biir mi na acca dem leen ngeen liggéey ji wax na leen tamit képp ku bëgg bokk ci liste yi ko war a doxalee laa na ko moom koy fa dajee ak kàngam même ñu teg leen ci seen bakkan bi professeur Moussa Diaw ci l'observateur mel ni kuraan ko pourtant Macky seetlu woo waaye li tax benn bokk yaakaar nar a ñàkk élection yi yow ci sa bopp yaa koy def te xamoo ko a ah, yow seetal nangu gi ngay nangu maire yi fa ñoo nekk ci opposition bi ku jégi mbiru transhumance ralliement gis nga loolu xamut benn njëriñ ndax sénégalais fi mu toll ni fa ñoo xeewu toppuñ benn responsable politique mel ni xar mu topp boromam fu mu la xëcc nga dem déedéet sénégalais yi bu ñu la wooloo fal la nga nekk maire bokk ci ku jégi Macky Sall dig la xaalis wala lu mu la mën a dig nga dem fekk Macky na la wóor na yow kenn rek yaay dem waaye mboolam ñi la faloon fañ lay wan ginnaaw seeti keneen kuñ fal ndax askan ña ci gën a bëri Macky Sall lañ waxut ci moom dara ba tax ku dem ca moom sénégalais fa pare ci yow professeur ne li may wax nii nag li koy dëggal mooy Idrissa Seck moo moomoon Thiès xëccewut ko ak kenn waaye ba mu fekkee Macky Sall askanu Thiès fañ ko war ko fi nga dem baaxut ci la ñàkkee Thiès loolu nag moo nar a dal ci lii muy def nii la mu def moom Barthélemy bokk na ca ña ca ànd Ababacar Fall bu Gradec fa xam la bi tënk doxalinu maire moo jox sañ bépp maire xam na sañ-sañ jël liggéeykat bu ko neex ca biir ba rawatina cabinet ba lu ci yoonu nit Gallo Mbeng na ko xée d'accorduma ak yow de wala bokk même bu ko ko yoon mayee mu jël liggéeykat fa ko war a yóbbu ca conseil municipal ba ñu càmbar ko buñ ca àndee baax na buñ ca àndul na ko affaire jàll Amadou Sène na ko gis nga yëf juróom stade yéen kaay ñu ko xamal Sadio Mané nag nee na moom fa bëgg a gagné Ligue des champions ba FA Cup lépp la bëgg jël man ma jël Vox Populi fekk fa njiit réew Macky fa doon inauguré daloo jumaa Blanchot ca Ndakaaru bi nga xam ne tubaab yee ko fi defoon yeesalaat bi jël na xat yu bari lañ ca dugal nag jege na ñaari milliards ba tax bés bi yéen kaay na ko moo taxit fi ne farafet ba jéggi dayoo Macky Sall nag bi ah, mu ñiy topp weeru koor yi ngir xam kañ la korite gi Sénégal ñaari fànna moo fi am ñuy seetal seen bët muy commission bi ak xarala yu yees ñi ñuy wax ay astronome si du quotidien ne ku nekk nag sénégalais yi lay déglu su ngeen ma dégloo man ma wax leen tooxi doona bu mag bu xam ca ay ralaawo yaw seetal benn professeur moo wannu loo lor elewam bu jigéen bu mu doon jàngal bu xam fukki at ak juróom ay alalu procureur la quinze ans bu maatam ñaawlu na li ni mel bés bi yéene kaay ñi ko xamal hmm, waa ma ne waxuma la iyaa waaye képp kuy doomu aadama rek soo ko dégloo fa koy ñaawlu sa elaw soo ko bëggee demal ñaan ko ay waa waajuram takk ko muy sa jabar waaye koo xam ne innocent la xale bu ndaw quinze ans majeur agut ngay xànd ak moom di xànd ak moom ba xëy war na loo ci koo xam ne xam-xam njub mbaax lay xaar ci yow léegi nag nañ xaar lan la yoon di def shukran El Hadji Oumar li ci yéeni kaay yi foofee sax nag la ñuy yem ci xibaar yi yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci wàllu euh, dëglu gi jaajëfal Codou Seck kenn mi ci xarale gi ak it waa rédaction euh, ci euh, njàppandal gi wéy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti taw féex ak tay siir jëfati